actuellement sax et, et une bon du ma ne c' est c' est une bonne chose j' que des duñ ma mere mais ñu ngi commencé impôt yëpp façon impôt yëpp ñu ngi commencé di ko di ko di ko collecté la dernière fois j'ai vu euh, ñu ñu ñu ñu envoyé ma une note euh, concernant l' impôt sur euh, la sur la valeur ajoutée locative Euh, tout ma ma ne ma ne inspecteur ma ne ko mais lii ma foog ne ndax bailleur bi moo ko war a fay mu ne ma non ce sont des impôts yoo xam ne daanañu ko daan collecté commencé nañu ko collecter actuellement aussi ñu ngi ci euh, ñaay bi actuellement euh, di bëgg a mettre en place euh, l'impôt sur le sur le sur sur le bâti. mais pour man loolu c'est une c'est une très bonne chose contribution la rek maintenant nag xëy na c'est une stratégie pour média yi bu mettee ñu média yi ñooy def communication. yéen dañu def duñu leen defal benn communication. <laughs> jërë ngeen communication benn leen ko defal. dañoo mer jërë ngeen communication ba Sénégal yëpp xam ne léegi dañoo war a fay <laughs> impôt mais bon man xam naa ne métier <laughs> moom seen kii bor mais ces grandes entreprises là même mun a ñooñu euh, waxuma la sax fay impôt dañu war a fay impôt ba pare def seen responsabilité sociétale. dañu war a contribuer dañu war a contribuer. loolu ñooñu nag pour man état war leen mun a muñal lu toll ni tarfat la été Sénégal Afrique rek la état di foowe la fiscalité. parce que fiscalité moo yor réew xam nga li ñuy wax eh, douane day dugal 1000 milliards mais impôt dugal 3500 4000 milliards mais loolu boo ko fooyee mais mooy li ngay tabax sa réew du bari da ngay recours ci endettement rek maintenant nag endettement day jox confort day jox confort président day créer lobbying day créer aussi des des passe droits yoo xamante ni euh, da ngay am nit ñoo xamante ni dañu am capacité am de grandes entreprise mën a fay impôt mais il peuvent financer le parti au pouvoir comme les stratégies yu ñu mettre en place moo tax yu mel nii bu amee euh, pour man c'est des choses yoo xamante ni lu ñu war a accompagner la mais euh, jàpp naa ni. mais mais on n'a jamais compris pourquoi état di wane benn mañaani mañaani mañaanité bi. Mm-hmm. Euh, ci ay secteurs de rente yoo xam ne dañuy def des bénéfices énormes c'est-à-dire. euh, je veux pas que les miniers euh, que les miniers <laughs> le secteur mi mm-hmm. minier mm-hmm. le secteur industriel euh, le secteur bancaire le secteur de la de la téléphonie et puis état bi di jël pression fiscale bi di ko exercer ci ses fonctionnaire amul fonctionnaire état buy buy buy buy buy rëcc impôt ak ci yenn euh, secteurs yi nga xam ne euh, amul benn valeur ajoutée bi mais mais mais loo loolu nag loolu mooy loolu ngay mere pour homme politique yi ñi nekk au pouvoir d'habitude cest dañoo fooy woon loolu yooyu nag li muy créer mooy entreprise bu ci nekk day am nijaay ci parti bi day am xaw ma nu ñu koy waxeete day am day am parrain boo xamante ni mën na koy neexal parce que man li li may mës a gëm mooy benn affaire la richesse des hommes politiques en Afrique rien la justifie mooy mën a les hommes politiques africains parce que da xam ni ngay gagné moo ëpp foofu ñoom li ñuy gagné. geste bi ci yooyu lay jógee foofu yooyu nag yooyu gis nga pour man xeex la xeex la ba nit ñi am culture parce que buñ fexe ba am culture bi euh, entreprise sénégalaise dina xam ne léegi li muy def parce que impôt d'habitude <coughs> état dafa soxla entreprise tey li état gagné sa entreprise bi moo ëpp yow li nga ciy gagné parce que l'entreprise c'est pour l'état c'est pas pour toi parce que état loo jënd dalay dagg TVA. ku fi liggéey mu dagg ko impôt sur le revenu loo am bénéfice mu jël ko impôt sur le bénéfice c'est-à-dire boo jëlee impôt sur bénéfice 30 pour cent 18 pour cent TVA ak euh, impôt sur le mooy li muy gagné yow doo ko gagné moo tax yenn saa entreprise bu demee ba ne toll ci diggante sax état jàppale ko bul bul daan. boo daan restructuré waaw li may perte day comme si dalee naan boo daanul man li may perte day bari. moo tax y de très grandes entreprises yoo xamante ni elles ne sont Chine dafa nekkoon ci moment de construction seen dëkk bañ demee ba yenn entreprise amatuñu liggéey Chine da leen a boot indi leen Afrique. ñuy ñuy ñuy opérer. wutal leen marché ndey naan Sénégal léegi dama lay jox entreprise boo xam moo lay defaral Ila Touba 400 milliards la mën naa fay entreprise yooyu léegi nga fay ma pour permettre son entreprise mu liggéey parce que li muy gagné ci entreprise bi la. foofu nag la ñu war a toll mais pour ñu tollu fa faw ñu am visibilité sur le plan Sénégal te loolu état bi lu ci war na cee farlu mooy que les entreprises soient cotées en bourse mun ma nangu entreprise boo am cent milliards de chiffre d'affaires xam nga bourse tey Sonatel BOA euh, euh, Total mu kenn mënul kenn kenn ñoom mënul drib du ñu mës a am problème fiscal dañuy am visibilité am lisibilité loolu la ñu woowee une maison de verre Côte d'Ivoire sur les 48 entreprises yu nekk ci BRVM les 37 sont des entreprises ivoiriennes ñun Sénégal 3 lañ ci am parce que ivoiriens yi fexe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 ñu ngi commencé ñëw Sénégal je dis que bu ñu amul aussi répondant boobu yóbbu ay entreprises sénégalaises ñuy dem ah, dans la sous-région ça va extrêmement compliqué